pour la liiru jaan da ngay jël lool na astafurla liiru jaan le grand champion ndam lu ne am nga ko waaye sa ndam lu keroog lu jooy yi nga jooy dafa jaaxal àdduna bépp damaa kontaan jooy mbégte la rek jooy mbégte la jooyu mbégte la sama xol sedd yal na nu yàlla musal cat at làmmiñ yal na yàlla musal cat at làmmiñ bu yéen bu leen ñu catu rek dee ñu ñaanal rek yàlla musal ñu ci cat. mais combat bi boo la. dama lay wax kuf ma la kuf la waaye kuf ma ñaanu ma ko yàlla te xam naa ki ma yor te ki ma yor ah, am na lu mu liggéeyal sunu boroom am na lu mu liggéeyal Serigne Touba te am na ñaanu waajur. am na ñaanu waajur am na ñaanu waa yàlla ko yàlla lafal cat te yàlla musal ko ci a ak cat ndaanaan kullu fadlin la. non seetaanu ma ko wax dëgg yàlla. non après laa ko seetaan bi mu jeexee après gars yi di ma tegal image. bi nga gisee Gris Bordeaux dóor Balla mu boobu. waaw bi nga ko seetaan naa seetaan ma xam nga ma xamal la benn affaire. Euh, lamb ji daa am fu ko tegoon te daa am fu ko tegoon ñun waa Guédiawaye soxla woon combat bi. Balla gay nekk borom euh, jom am jom am fulla am fayda nekk der nekk gay gaynde lu mu metti metti tey dem ba jeex laaw la cat laf cat Balla Gaye yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yal lafal cat yàlla musal ko saytaane ak làmmiñ waaye koo xool xam ne ndaanaan la keroog daa dem ba jeex nee naa la ñiy wax giri daa war a bàyyi bëre wala giri dafa màggat dañoo juum nan bàyyi li ñuy wax giri ndaanaan la champion la def la flou daa dajeeg ndaanaan nag soo dajeeg ndaanaan sa ndaanaan du feeñ ah daa dajeeg ndaanaan daa dajeeg ndaanaan giri ndaanaan la champion la waaye daa dajeeg ndaanaan soo dajeeg ndaanaan sa ndaanaan du feeñ waaw waay. mais gars yu bari dañoo jàpp ne Balla Gaye daa nekkul ci dara. kan la jàpp gars yu bari. waxu ku ko wax waxoo dëgg ku wax ni Balla Gaye nekkul ci ne waxoo dëgg maa ko wax ku wax loolu waxoo dëgg soo ko waxee waxoo dëgg. man waxuma ko ah yow yaa ma ko wax àccan la amee yaa ko dégg. Balla jàpp nga ni. waaye yow dimbali ma yal na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla lafal cat Balla Gaye de yal na ko yàlla lafal cat xoolal keroog Balla Gaye arène nationale day musul ci moom xoolal keroog arène nationale li mu mel te nag yàlla na fi yàlla ba jàmm <laughs> ba lii ci kanam liñ jëm yàlla fi yàlla bàyyi jàmbale ñu lii ngeen bëre ak ak ak Gris Bordeaux daanul daanul yoon nekku ci nañ kippee seen affaire dañ ñu bàyyi si booy dama la bu ma fonto bul ma wax ne ay capaacoli ah non dama la bul ma wax ne capaacoli xaw ma sama yoon nekku capaacoli man Balla Gaye 2 laa xam le lion de Guédiawaye gaynde gi série bu di bàcc la bàyyi ma xam kaasu fondal sama yoon nekku ci bu fi wax di ka yéen ba di ngeen di fàtte Balla Gaye ñaata yoon ñaata mbër Balla Gaye ñaata mbër la daan Pikine loolu da ngeen koy fàtte bàyyi leen seen yooyu Balla Gaye ñaata mbër la daan Pikine yéen loolu ko wax kan benn Eumeu Sène Eumeu kese Eumeu Sène ko daan Pikine bari na at bàcc Seras Coly Faye euh, euh, Tyson at kii nu mu tudd euh, kii euh, nu mu tudd tam nekkoon Pikine euh, te tukki léegi booy sëy waaw. ah waaw voilà bu leen di fàtte yooyu bu leen di yooyu da leen wax yu baax da leen wax yu baax tey wax yow bu bàyyi yeneen yi ngeen di wax bàyyi leen seen yooyu waay. xoolal yàlla na ci yàlla yóbboo jàmm du gars yi doon wax naan Balla Gaye lu nekk lu nekk du gis na na ci yàlla yóbboo jàmm tama ñu fekk at tal yàlla na ci yàlla yóbboo jàmm tama ñu fekk at tal Balla Gaye yàlla lafal ko cat gi Sénégal Balla Gaye mooy àdduna Balla Gaye ñëpp ko bëgg te Balla Gaye taalibe Sëriñ Tuubaa la di ay social Balla Gaye amul fenn sens interdit waay waay ñi ko bañ xanaa ñi dañoo soxor wala dañoo iñaan wal dañoo iñal la ci Balla Gaye ku ko bañ da ngaa soxor wala nga iñaan wala nga iñal ci Balla Gaye yéenewul kenn lu bon Balla Gaye yéenewul kenn lu bon waaw awa awa Jóob